neena noo ngi jublu ci taalifu dëgg-dëgg te tàmbale itam ci turu yàlla mu tedd mi jëkk laa yëgal ne la àtte ci boppam mooy saxalal mbir mbir wala dàq mbir ci mbir boo ne bëccëg bii dafa tàng askan nga ak tàng jëme ci bëccëg bi loolu àtte la boo ne bëccëg bii tàngut kon dàq nga ak tàng ci bëccëg bi alxukmu foo ko fekk mooy itbaatu amrin li amrin wala nafyu amrin xan amrin xel dana ko def xel mu sell nag la mu xalaat ba bàyyi moom loo ko topp topp du mën a weesu yett yi benn xel mi ne lii daal moom mënta ñàkk mbaa mu ne lii daal moom mënta am mukk mukk jomb na mbaa mu ne lii daal mën naa am mën naa ñàkk yett yi moom àttub xel mënu koo génn day def nag booy jàng ci tawxiid yett yooyu day faral di feeñ ak feeñaat su borom mi ngay njëkk jàng nañ koy gëme day am melo yoo xam ne meloy mat la yoo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati ne melo yi moom ci yàlla am melo yoo xam day nekk melo yu manqué lu ko xel mi wëlbati wëlbati ne lii jomm na ci yàlla am loo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati ne lii daal ci wàllu suñu borom moom mën naa am mën naa ñàkk moo tax mu ne la àtteb xel mënta génn kenn ci yett yi xel moom moom gëstu gëstu mbir ba bàyyi benn mu ne mbir moomu waajib la mbaa mu ne mustaxil la mbaa mu ne jaayis la mu xamal la yett yooyu waajib mooy loo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati ne lii mënta ñàkk niki am sunu boroom ba noppi dikku dalewul fenn fenn loolu moom lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne lu mënta ñàkk la faw rekk yàlla doon koo xam ne am na teyit daliwul fenn fenn daañ ca joxe aw lay wu leer naññ buñ àggee ca fa ñuy waxe lay ya lu jomb nag mooy loo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati ne lii moom mënta am ci misaal mbindeef fi yalla leen sak ñu sak lu ne amna fu dale xel na ngul mukk nak ne amna na lu bokku tak yalla ñu dalé wul fenn yalla kep kep la xel nangu ne dalé wul fenn fenn waye lu bokku tak mom rek xel day japp ne ñakul fu mu dale kon nak am kenn ci minde fi ko xamni amul fenn fu mu dale Lo mënta am bu amé ñuko wax ñi gàtt xel itam waxi kese rek la waaye nekkul rek kenn koo xam ne moom dalul fenn gannaaw ba nag moo sàkk lu bokk ak moom te lu mu sàkk lu ne am nga foo dale jaayis mooy loo xam ne su ko xel mi wëlbatee day wax ni lii daal mën naa am mën naa ñàkk dee moom mënta ñàkk xam nañ ne nit dana ko def lu amuru dana ko def waaye nag xel nangu na nit ki dee léegi léegi waaye nangu na itam ak bañ a deexam léegi léegi nga xam ne kon deewu nit ki léegi ak mu ñàkk a deexam léegi lu ci nekk rek xel nangu na ko lu mel noonu jaayis lañ koy tuddee ak ne ki sos gi yàlla sos mbindeef fi jaayis dong la bul gis rek li yàlla sàkk muy ay mbindeef nga ne li li daa war a mëntoon a ñàkk ah kay mënoon naa ñàkk ndax am na yeneen yoo xam ne daañu la ko wax ci kanam mënoon naa am te amut gis yenn mbindeef yi bu mu tax nga jàpp ne mbindeef day lu mënta ñàkk ndax bu ñu nee mooy lépp loo xam ne xel nangu na ak mën a amam yooyu nag ñaari xaaj la am na lu mën a am ba noppi coobare yàlla ak kàttanam aju ci amal ko mu amal ko am loo xam ne itam mënoon naa am sax ci gis-gisu xel waaye daa soob yàlla ci coobareem mu ñàkkal ko mu bañ a am mu ne nag yoon day sàkku ci moom mu xàmmee meloy mat yi nga xam ne sunu boroom mënu koo ñàkk melowoo xàmmee itam meloy mànk yi nga xam ne jomb na ci sunu boroom xamit la nga xam ne mën naa am ci sunu boroom mën na caa ñàkk yitam ba tey boo àggee ci yonante yi noonu la day am melo mat yoo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne lii mënta ñàkk ci ku yàlla yónni am melo yu manque yoo xam ne lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne lii jomm na ci ku yàlla yónni am loo xam ne nag lu ko xel mi wëlbati wëlbati xam ne mën na am ci ku yàlla yónni mën na caa bañ am nee na noo ngi jublu ci taalif dëgg-dëgg te tàmbale itam ci turu yàlla mu tedd mi njëkk laa yëgal ne la àtte ci wetam mooy saxalal mbir mbir wala dàq mbir ci mbir boo nee bëccëg bii dafa tàng askan nga ak tàng jëme ci bëccëg bi loolu